asalaamaaleykum bokk jul iñu seetaan ak bokk taalibe yi jot na ndigal ak ñaan ci sëriñ Muntaxa Mbakke xalif général di murit yal na fi yàggul lool tànd jaar ca kan nag sëñ Basiru Mbakke porte parole yoon wi ak kan nag ci njiital kan nag sëriñ Youssou Diop mi nga xam tubaarkàlla jëwriñu ispitéri xëy ñëpp xam na ko moom la sëñ Muntaxa jiital ci liggéey bi ak kan Alaaji Mbakke yu fay représentant xalif général di murit ci Ndakaaru lu ko wër ñi ngi jëm nag ci bis bu rëy bis bi ñëpp doon ndik muy kuréelu fàttali ko julli géej gi ci njiital kan nag ajaratu soo du xuma mu baax mi ñëpp di ko waaj kañ lay doon le 21 septembre muy bis boo xam ne àddina bépp du bisub Ndakaar rek bisub jullit yëpp laa bisub murit yëpp la waaye ma jox kàddu nag sëñ Lamine Diouf mu wax ci turu Serigne Youssou Diop jëwriñ Hizbut Tarqiyyah ñu nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi di tàmbale suñu kàddu ci ziyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi di ànd ak wér di leen jottali kàddu yi ci turu Serigne Youssou Diop mi nga xam ni mooy jëwriñu daari Hizbut Tarqiyyah di ko jottali ci turu soxna Soodu Xumma mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides moom la jiital ci liggéeyu fàttaliku julli géej di bis bu ñuy amal at mu ne ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre di ci fàttaliku taxawaayu seexul xadim bi mu amoon ci biir géej gi liggéey boobu nag ren di ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition bi muy bis boo xam ne sëriñ Saliou Mbacké mu baax ma yàlla nañu ko suñu borom fayal ba muy joxe ndigal li dafa ni woon nañ ko def bisum ndakaaru muy bis boo xam ne kon képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci ndakaaru moo xam ngay daayira moo xam ngay kuréel moo xam ngay mbooloo moo xam ne aju na ci sëriñ bi nga xam ne bis bi sa wàll mi ngi ci sa yoon itam nekk na ci looloo waral bi nga xamante ni sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké jël na liggéey bi jiital ci soxna Soodu Xumma dafa woo jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop boole kook moom ñu ànd ak moom liggéey bi ci mbooleem banqaas yi nga xamante ni moom la kuréelu julli géej gi di doxe kon nag man kàddu yi dama koy wax ci woote boo xam ne dafay jëm ci waa ndakaaru bépp daayira boo xam ne yaa ngi yeewoo ci ndakaaru moo xam nga nekk pikin wala Géejawaay wala Grand Yoff ba fa ndakaaru ñu bañ a jàpp ne bis bi waa Yoff ak waa Parcelles ñoo ko moom xëy na dañoo am tawféex barab bi gën leen a jege waaye fépp fu ab daayira nekk ci biir mu xamante ni sa taxawaay soxla nañ ko ci leneen li ci des tam mooy wàllu njàngum xaside yi muy taxaw taxawaay bu yaatu ci bis bi muy kuréel yoo xamante ni fas nañu yéene programme yi bu ñu tàmbalee du am fu muy yem ba keroog ñuy ñaan waxtu julli cheikh Mouhamadou Fadal ibnu cheikh Abdoul Khadr jiite mbooloo mi. kon loolu kuréel bi sax tàmbal na ci liggéey ci daayira yi di ànd ak ñoom ci fànn yëpp jigéen ñi itam seen taxawaay di ci taxawaay bu ràññeeku euh, jiital gi ci sëriñ bi jiital soxna soodu xumma wane na ñoo am nañ ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la kon nag muy bis boo xam ne. nañ ko waaj ni ko daan waaje dina am ci programme yi ñaar fukki fan yi ak ñaar fukki fan ak benn diggante conférence yi exposition yi waxtaan yi ak bis bi nga xamee ne ñi ngi ko jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall te di ci séntu njabootam ci njiital sëriñ am ni mi nga xamante ni mooy xalif général des Baye Fall. kon nag bis baa ngoogu muy ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci weer wi nga xamante ni mooy septembre euh, di ci séntu mbokki jullit yëpp. di ci séntu mbokki taalibe yëpp rawatina ñi nga xamante ni ñooy mbokki taalibe yi fii ci Ndakaaru jërëjëf sëriñ Lamine Diouf ci kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ Youssou Diop jàmbaar jooju ma jox kàddu gi nag sëriñ Mamour Mbaye jërëjëf sëñ Ibra Thioune jërëjëf sëñ Lamine kuréelu Hizbut Tarqiyyah kuréelu julli géej gi muy kuréel goo xam ne ñaari kuréel yoo xam ne murid yëpp ci lañ waat ci biir ndigal lii nga xamante ne nii sëriñ Mountakha yàgg na koo joxe te ko mooy ku nekk Ndakaaru Kaver bis bii nga xam ne Serigne Touba ci la julli woon ci géej gi te sëñ Ibra Cuun julli géej gi buñ ko mënta fàtte am na lu tax ndax julli julli biig sax fàtte nañ ko yiñ julli weer wee weesu fàtte nañ ko julli bu demee ba mat téeméeri at ak nangam te mënuñu koo fàtte conséquence ba tax diggante Conakry rek Ndakaaru mu cëppeelu ci seen gaal gi wàcc ci géej gi ne allahu akbar keroog ba tey boobee ba tey képp koo xamante ne jàpp nga ci yokku rek ngay def kon fu waay nekk Dakar Tëngéej Bargny Thiès ñëpp nañu ñëw na soodu xuma kuréel julli géej gi alaaji Yuusu Jóob waa isbu tarqiya ñi ngi koy woo ci ñëpp ci ndigalu sëriñ Muntaxa jaar ci sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Xaadir waaye nag seen jàmbaar ji di alaaji Mbàkke yu fay foofu nag ku yeex doo am foolal jërëjëf sëriñ Maam Mor Mbaay alaaji moo di bay samp yoo lay jox kàddu gi na nga turu taalibe Ndakaaru yëpp nag bisum Ndakaaru jëwriñu Ndakaaru di alaaji Mbàkke yu fay représentant xalif général des Mourides mu ni kon daal ginnaaw bi mu siyaare Cheikh Mamadou Muntaxa xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te mu ànd waaye nag nii ngeen taxawee wootee ko fii ci Masaalikul Jinaan di waajal lan kuréelu julli géej gi géej gi yàgg naa am xar baax ndax nit judd nañu sànni ko ci géej mu màgg xar géej waaye jaamu yàlla ci kawam ndax kenn rek ko mas a def mu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul le 21 septembre di bis boo xamante ni da nga koy laaj waa ONU Nations Unies gépp d' accord nañ ni 21 septembre mooy journée mondiale de la paix muy bisub jàmm ki nga xamante ni nag moo indi jàmm ci réew mii indi ko ci Afrique gii mooy gat mooy Cheikh du Bamba bi ko yàlla ne maay jàmm da di ni bala ma laa tudde dëkk tudde la doom moo noo tudd doom ji nu mu tudd mu ni Abdou Salaam dëkk bi nu mu tudd Daaru Salaam doon wax yàlla ya salaam kooki nag kon bu ñu demee ba le 21 septembre muy journée mondiale de la paix ajaratu soodu xumma di fàttaliku Serigne Nasir Touré mi nga xamante ni moo ko jëkkoon yor ànd ak Serigne Baba Gueye Serigne Cissé Mouride waaye nag Serigne Makhtar Diouf moom ñoo ma ko basa ànd na koy jekk waaye nag mu taxaw taxawaay boo xamante ni moo aji soodu xuma du daw du daay du dëpp liggéey boobu nag mu nii nag fii ci Masaalikul Jinaan ginnaaw aji gàmmu Jóob mi ngi fi aji faama Loob mi ngi fi aji awa Jóob mi ngi fi euh, soxna Astu Gey mi ngi fi nday daw Baay Faal mi ngi fi daal daal sama jëmm daal nañ ko jël taxawaal nag woor nag Ndakaaru gépp la tàmbalee wakaam ba keroog ngay dem Sébikotane képp koo xamante ni yaa ngi ci diwaan yi war nañ la ci bis boobule di le 21 septembre di julli géej gi kon nag bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn waaye li nga xamante ni moom lañ ci fàttali mooy bokki taalibe yi nga xamante ni nag kenn ku ci ne bu la sëñ Tuubaa si woon nga am noo def ñëpp fàttali leen ko kenn ku ne waajal ko te xam ni nag bisam Alaaji Ajaratu Fatou Touré Port bis baa ngi noonu le 21 septembre kii nga xamante ni nag moo tax nu daje maay wax ni lu ne nga daj ko dajoo boo toogee nag ba dajatoo daj bay dajale ñàkkul koo dajal aji sodu xumma mi nga xamante ni doo ko dégg Sorano amul grand théâtre place fan nga koy dégg ci liggéeyu Sëñ Touba kon bu lënkalee ak isbu tarxiya kuréelu géej gi isbu tarxiya tawfiq day daal di am ndax isbu tarxiya keroog bu mu juddoo 1975 ba lii may wax ak lépp lu war digganteem ak sëñ Touba ak donga def nañ ko kon buñu nee nañ dañ construire un exemple dañuy ñaanal nag Serigne Youssou Diop ak ñi mu ko àndal jëpp defal leen xéewal ak mucc ak yokk ak ndam kon bis baa ngi noonu waa kuréel bi nag ci njiital ajarot soodu xuma Mourid Sadikh Ba ñu ngi ko yëgal le président de la république monsieur Macky Sall et l' son gouvernement di ko yëgal nag le premier ministre le ministre d'État Mbaye Ndiaye kooku ci kuréel bi la bokk waaye nag le ministre de l'intérieur sur le plan sécuritaire xam ngeen ni bis boobu taxawaay bu rëy lañ ci ren avec le maire des Parcelles Assainies xam naan kon ma jox kàddu gi Serigne Cheikh Mbuub rek incha allah ma ñëw ma soog a ñëw nag ci soxna yi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu bu baax di ziare Serigne Mountakha moo jox ndigal soxna Sooda Xumma boole ko ak sëriñ Yuusu Jóob mi nga xam ne nii xam nañ ni waa is bu Tarqiyyah seen pësteef ak seen nangoo liggéeyal borom Touba kenn xamul fu mu yem kenn xamul fu mu tàmbalee ñu jël responsabilité nag jox ko soxna Sooda Xumma responsabilité nag yàgg ci lislaam ci jigéen ñi Sumaya moo jëkk a faatu ci lislaam kon jigéen mën na yor cër bu nekk ci lislaam waaye julli géej gi nag nga xam ni moom lu universel la àdduna bi yëpp ci war a jàpp comme ñi ko jëkk ñi jëkk a wax li ñu wax sëriñ bi daf ni lillahi kulliyati bi salaati zuhri wal asri wal maghribi baada turri kulliyati la dal wal fajri lillahi wal muxtaari baabil ajri nee na juróomi julli yi man Cheikh Ahmadou bàmba du ma ko jox sama lenn bàyyi sama lenn bàyyi sa xel bàyyi xel de bàyyi sa xel sa bopp la man du ma bàyyi dara ci diggante boobu ma yàlla sant ma jullil ko kon bis bii ñu dénk soxna Sooda Xuma maa ngi waat ci yàlla ne Sénégal gépp ci war a jàpp l'islam bépp ci war a jàpp ndax victoire la boo xam ne nii victoire bu rëy la boobu dootul am mukk jërëjëf Serigne Cheikh Mbuub ñëpp daan na ñëw ci bis ba bu ñu jógee màggal Touba rek ñoo ngi jëm nag jàmmalaay le 20 ak le 21 septembre waaye ayatu gàmmu Jóob jëwriñu kuréelu Masaalikul Jinaan mi ñëpp xam moom la jox kàddu gi nag mu woo daayira Maam Jaara yi ak mboolum fi jigéen ne ci biir Ndakaar ak bitim réew. maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp yal na nu yàlla boole jéggal ñu dëgmal bis boo xam ne nag bu ma siyaaree Sëñ Muntaxa mbake maa ngi siyaar nag suñu jëwriñ mooy Ahmadou Mbàkke yu fay ndax yëgal naa ko lii démb mu ne ma kuy jigéen kuy daayira ak koo àndal yéen ñëpp na ngeen préparé dem ci avant première ba te na ngeen wuy ji Adja Soda Xuma may seyaar Soda Xuma bu baax a baax ñu jëm foo xam ne nag damay woo mboolem daayira yi nekk ndakaaru daayira bu nekk ndakaaru soo déggee kàddu gi ngeen xam ne ndigal moo jóg ndigal nag bu jógee ci yoonu murit jëfe rek lañ cay teg ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan yàlla ñu wegg ca bis ba ak jàmm xam naa lu ñu waajoon daaw danañu waaj lu ko raw ndax murid ndigee rek lay jëfee. ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu dund dund gu yontu yàlla noohin nga ta lépp ànd ak wér ak xéewal noonu lañ koy ñaanal tam suñu jëwriñ soxna Sooda Xuma moom itam yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér ak ñi ngi woo bokki jullit yëpp nag rawatina bokki taalibe yi rawatina nag waa daayira yi fañ ko daan defee te jàmmalaay fa lañ koy defee nañ ko daan defee ne lañ koy defee wa yokk wàññiwuñ ci dara lu ci mënut a yokk du waa Hizbut Tarqiyyah yi ñu nga xam ne sañ sañ Muntaxa Mbàkke moo nu booleeg moom di leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak xeewal ñoo ngi wax ci ndigalu jëwriñ Adja Soodu Xumma parce que bi ko sëriñ bi joxee lii ba tey bàyyiwul kenn ku dëkk yoof wala lu ko jege ginnaaw mi ngi woo daayira yëpp ci ñu ànd ak moom liggéey bi mi ngi woo daayira yëpp ndax nee na sëriñ bi da ko waxoon na ko tànk ñëwut ba romb aéroport bés bi yëgaguma ko kon ndigalu sëriñ Saalu boobu ndigal loolu jaar ci loxoom sëñ Muntaxa feddaliwaat ko mu ngi ciy soññu ñëpp kon nag ñoo ngi wax képp ku am daayira amee ko ci gox bu jege dakaar ñu ngi lay woo ci xeeti bernde di la woo ci xeeti teeru gan yi di la woo ci xeetu lépp loo xamante ne Serigne Touba bëgg na ko ci dëkkam ba Touba ñu def ko fii ci dakaar dakaar incha allahu rabbi ndax ñaari rakkay kat mooy sunu cër léegi nag ñoo ngi jox kàddu gi ajar sundee koddu jeng bàyyi faal bi moom bu wootee mel na daayira maam jaara yëpp woote ndax ràññee nañ ko ci liggéey maam jaara bu sa gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi siyaar sunu jë sëñ Muntaxa Mbàkke di siyaar sëñ Moodu Mbenda man nan ci turu bàyyi faal yi laay laay wax di siyaar soxna Soodu Xuma ndax tubaar kàlla man maay euh, euh, bàyyi faalu kuréel gi may woote nag may woo waa kër Cheikh Fall gépp ak képp ku yaakaar ndax ñun le 20 ñun Baye Fall yi moom la nu moom te le 20 mooy bisu Baye Fall yi kon boog maa ngi ñaan képp ku yaakaar Cheikh Rafal na nga ñëw bisu le 20 bi ak le 21. di siyaar sunu soxna su baax xoos nag muy soxna soodu xuma di ko ñaanal yàlla sama borom may ko fan bu gudd wa ànd ak wér ndax boo gisee ñu mel nii gannaaw yàlla ak yonent lépp mooma ñun ay ndaw lan waaye dañoo xiirtal ci sëñ Touba ak Cheikh Rafal di sant nag suñu mbokk Hizbut Tarqiyyah yi ndax tubaar kàlla da ngeen a yokk ci xarma karaw daan na neex de waaye bi ngeen egsee gën naa neex. bis baa ngi noonu de ci la ñu jëm sëñ Mountakha nag moo joxe ndigal li waaye tubaarkal ñu ci woo ñëpp bàyyi ñu kenn daayira Ndakaaru yi sëñ mu alaaji Modou Bay Sam wax na ko léegi ndax ñëpp daanu ñëw bu kenn buuxante nit ñi dana bare waaye sécurité bi na doy ñi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam.